jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ la am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci parcelle Assainies unité 4 seet si fi xale boo xamante ni champion la la ma waxoon démb rek ci njàngat làmb bi ma def waxtaan ci mbëri simple yi nga xamante ne ay champion lañ ñu leen di gis ci simple bi ñuy liggéey liggéey bi mucc ayib te bëre door bi gisuñu leen ci amuñu ko combat promoteur yi ñoo leen gëstuwul wala gars yi dañ leen a xool wala ñoom ñoo gën a fibre fibrilisé que bëre door bi que bëre bi loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak booy fay tey moom laa dalal ñu bëgg a waxtaan ci làmb ci lépp loo xamante da koy yokk carrière booy fay fan la jëm carrière booy fay lan moo tax bëre door bi koo ci wax booy fay mu daw moom mooy laaj lu seer wala ay adversaire mbërëm ñoo koy daw loolu yëpp dañ ci waxtaan Boy fay maa ngi lay nuyu. waa jëli ñu ngi lay fay jox auzu billahi bismillah inna wali yàlla allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allahu la ilaha illa allahu anta ahadul samadu allazi lam yalid walam yulam yaqul huwa kufuwan ahad di sant yàlla bu wér waaw di ñaanal suma papa fi mu tëdd gënal ko fi mu jóge di yërëm suma yaay bu baax a baax di ko ñaanal wér gi yaram di ñaanal askan wépp di wax jërëjëfe Serigne Touba encore une fois di bëggee Baye Fall yëpp Baye Daaru yëpp waaw di nuyu waa Medina Baye di leen jaale sëñ Cheikh Tidiane di leen ko jaale bu baax a baax a baax ak waagar Papa Yade yi maa ngi leen di jaale Papa Yade képp ku bokkoon ci axlu làmb wàññeeku maa ngi lay ñaanal suuf sedd sa kaw ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw. Boy Faye ñu bëgg a waxtaan trois mois pandémie trois mois yoo xamante ne bëre amul dara amul te ku xamoon Boy Faye xam ni samedi bu jot wala dimanche bu jot mu wàcc ci route gi ñàkkante ko ko ay moromam xaw ma na compétition la manqué wala xaalis parce que boo ñëwaan di nga mën a am benn un million par semaine wala cinq cent mille par semaine loolu bu ngeen demee ba amatoo leen ko ban yëg-yëg ngeen am. ah la bindoo. Hmm. yàlla moo nu sàkk moom ñoom. jamono ji nekk nag ak li ciy xew lii benn mbas mi dafa lëmbe àdduna ah maanaam ñëpp a ko yëg même bitim réew ñi nga xam dañu daan liggéey di fayeeku naes di ko teg ci yoon dem nañ ba tey jii nii mënatuñ fayeeku loolu ndax problème mu mbas mi te mbas mi moom dañuy ñaan yàlla jëlee ko fi rek ci bari Seydina Mohamed ndaxte nattu la boo xamante ne suñu borom moo ko wàccee ci jaam ñi te ni ñëwee noonu lay demaatee nit ñi nekkaat ci leneen quoi man loolu laa jàpp loolu moo tax ba bële gars yi compétir ñu tëj lépp mais c'est normal parce que jàngoro la yoo xam ne dafa xaw a doy waar tamit quoi. Mm-hmm. waaw. entraînement yi fi mu toll nii est-ce que dina ko téye comme ni mu ko daan téye parce que Boy Faye dañoo gisoon bi saison bi tëjee nga dem Maroc entraîné ji ñëw indi état de forme boo xamante ne macha allah boo simee ko dañuy xam ne kii liggéey na fa mu nekkoon ngay ñëw ci compétition yi di jël. di ko ñàkkante léegi fi mu toll ni est-ce que ci lancé bi nga nekkoon booy Faye dina gérer état de forme boobu. ah waaw yàlla yaatu na bëri na sutura yàlla na mbas mi jeex ak jàmm bañ commencé rek yaakaar naa ne ñu ngi ci liggéey boo xamante ne maag suma gars yi ah maag suma grand frère Garga ak suma gars yi Niang Mballo ay ah, giro sama gars yi ñoom ñëpp mooy loolu daal mafia bi ñëpp sama ginnaaw ñi ngi entraîné te yaakaar naa actuellement li may entraîné nii sax bi ma jógee Maroc entraîné ma lu toll noonu. amaana daal liñ naan ku wax feeñ dan nañ am wér bañ ubbi saison bi buñ dawalee benn làmb ñaari làmb dinañ xam ku ci nekk li nga liggéey lan la ko quoi. dëgg fa yàlla du jar sax nuy wax askan wi ne damaa liggéey wala lii. pour doxalee dinañ xam quoi. dañ laa dee ne la da ngay waaj a am combat wala da ngaa njort ne di nga am combat ci bëre dóor bi ba tax ngay entraîner entraînement yooyu. waaw waaw njort nañ ko parce que ñun moom li may wax toujours pare la ku njur xaar daal doo xaare hmm. ñun toujours ñu ngi ci liggéey bi. bu ñu waxoon làmb suba suba suba pare nanu waaw di ci ànd ak suñuy mbokk waa mbel góor yeeg ak waa jëlaxaar yeeg waa Loul Sessène ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waa Fatick ndug gi nga xamante ne mooy suma dëkk ak waa Saalum kër Mbangu Jaaw daaru kër Momar Xare ñu ngi suñu ginnaaw tamit bu ñu waxoon làmb suba suba suba ragaluñ loolu wax dëgg fa yàlla dañuy jël sër bi dem estade rek jàpp daan ñibbi rek wax dëgg fa yàlla billaahi ñu ngi ci liggéey bi daal ñu ngi ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey loo xam bir nañu ne biir nañu ne bu ñu dalante góor di nga xam ne góor dalante na ak yow ci kàttanu suñu borom. Mhm. léegi Boy fay li ma jaaxal mooy sa carrière làmb bëre dóor dafa mel ni bëre simple bi nga gën a forcé moom nga gën a bëgg ka bëre dóor wala combat wu bëre dóor dafay jafe ci yow lan moo tax Boy Faye duñ la gis ci bëre dóor bi est à peu près bi nga gëj a léegi da war naa def quatre ans. waaw mën na quatre ans mais nag du suñ coobare. Mhm. dëgg la am nañ ay promoteurs ñuy dox làmb yi. mais dafa am benn message may jàllale gis nga mbëru Sénégal yi am na ci ñoo xam ne war nañ bàyyi làmb defi leneen ko lu tax loolu. ay tapet lañ. Mhm. dañu war a bàyyi seen làmb ñu rëy yi ñuy tokki bopp ko ñi di wax bu leen seetee yóbbul leen làmb ñu delloo làmb ji. nekk mbër naa takk ngemb doon tapet. barki billaahi wallaahi watalaahi xaaju làmb ji ay tapet rek ñoo ci nekk ay tapet kese. bëri na ci ñoo xamante ne bu ñu ubboon ñaari mbedd yi ñu ne ci digg mbedd mi dinañ yuuxu ba foo tool di ko dégg ay tapet lañ ay ragal lañ nga man a mbër yoo xamante ne nii mbërum làmb laa mbërum làmb laa kuñ ci yóbbul avance ne la am ñu waxtaan tey ba xaw a déggoo duñ déggoo sax xaw a déggoo nga dem làqoog say mbokk naan c'est-à-dire bi ñu réunion baaxul ngaa nga ta ngaa sàmm ma yëfu tapet yooyu mooy lan ah loolu loolu bàyyi làmb moo ko gën man bu ma naree dal biir na Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree ni ma bàyyi làmb dem defi leneen immigré ji wala ma defi leneen moo ma ko gënal. est-ce nekkul da ko wax pour bëgg buzz rek mais yaakaaruma ne benn mbër dina fi daw booy fay yow kan est-ce que mës nañ laa dox ak benn mbër mu jékki-jékki ne non avance bi combat bi baaxul samay mbokk ne nga delloo ko. promoteur baa ngi may dégg. ale taxaw na fii Instagram la wax Instagram mbër dugg nee nañ ma ko jox dem làqoo keneen ci ginnaaw ne non nee nañ làmb ji baaxul keneen ak keneen ak keneen fii lañ seeti limousine. daa daw tàppet la. nee na mu tëggee. barki Mouhamad daa waxet la def dafa daw. barki sëñ ma limousine bu bëggee bu jëlee suma suma avance ma lamb bu doyalul xaalis ma dagg ci suma avance dollil ko ko barki borom daaru salaam limousine mi ma gis keroog nga lekk ci état de forme bu garaaw waaye sa waaye dama ne la état jumbo la nga naan ma nangam bu ma jëlee ma teg ko ci yoon nga naan ma nangam ak sàngam man nëbbatuwuma de làquma li ma lay wax ay bébé jéen bi ma nekk fii yor laa mi ñam bu rëy bii ñu naan bébé jéen ragalul kenn moom mi biñ ko seedee nu mu def daa daw ji te moom su ma ci moom dama koy may mbëz man 11 combat def moom 6 combat ma la def man damaa def ay grand combat daan ay dumbul ay 12 ans ay booy gendar ay suñata ay sele ay ñeneen ak ñeneen nga may wax ay ay ay naan ma nangam moom man maa ngay may chance ñoom ñii seen làmbiñ moo rëy mbëru Sénégal rek wóor na yàlla ku ci ñeme sama làmb demal alee yor sama avance di dox pour joxe sama làmb ñu nekk fii di daw ku ñeme dama jël làmb ji. est-ce que du ñu def fourrière lay bañ a jaarale la foofu moo tax du jël sa avance parce que xam naa ne ni mu def fourrière keroog arène nationale Bébé Diène mu ngi ci état de. Bébé na ko yàlla defal jàmm ba mu jël làmb ji rek bu jëlee làmb ji fourrière nga wax di wax booy fay jili yow yow yaa xamul waaye moom xam ñoom xam nañ sax laay wax ñoom xam nañ mais yal na yàlla def jàmm ñu jël ñu ñu bëre rek ay ndaw lañ dañ coo toll war a bëree nañ génn ñu bëre mais boobu nekkee mbaru traditionnel ñu ne du ñu bëre te mbaru traditionnel gën leen riis ay palmarès yu bëri dóor laa la wax da nga ci gis ko am 5 combats di daw koo xamante ne 11 la am 11 12 13 combats ñoo xam ñoo la gën a riche palmarès fop mbër moo ci dégg mu jël mbëru simple rek xamal ne jàmbaar la vainqueur la ndax bàyyi na junni mbëru dóor yi ci ginnaaw yoo xamante ne boo tegee la avance mbëru simple duñ ko jël. loolu fan lañ ko teg xanaa ñoom lamb yëkkatiwu leen wala léegi làmb ji dañ koo bëgg di politique. làmb kenn du ko politique. di politique sa làmb ñu jaar la nga am làmb fii faxastalu ñu lijjantil la kolo kolo say làmb nga dem taxaw ci kaw yor sa làmmiñ wu rëy mën rajo ratatat ratatat ratatat daanoo kenn. ma jaaxal booy fay mooy boo waxee limousine euh, ni dala daw nga jékki-jékki ne bébé Diène daf la daw ak kan. ma ne la fii ñu daw làmb ji bari na lii bu duggee ñu bëri xam nañ seen bopp ne seeti nañ leen ñoom ñu delloo làmb ji bari na ñu ngi ci wax booy nekk fii di wax émission bi day jeex ci lim rek. Mhm. ci lim rek lay jeex mais man booy fay am ma la ak génn promoteur boo xamante ne sama waxaale daa yomb guddul nañ ñëw ñu bëre ñu bàyyi seen yëfu tàppe di nekkee nii. lu ñuy daw ci yow mystique bi wala état de forme wala bëre bi lan la. ah ñii nee nañ fay dafa am ngemb de daal ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo xam fii naan wax leen de foore bi daal am na lépp foore baa ngi nii booy fay mi ngi ci foore bi te foore bi am na lépp xaaral xeex xaaral lépp. xaaral lépp lépp xaaral lépp dina la dal bari xaaxam lépp dina la dal nag wóor na yàlla lépp na la dal ci làmb ji làmb ji lépp na la ci dal de gi borom daal lépp lay dal waaw déggal déggal déggal sa waay ñang baalo mu ngi lay gën a ruux te te wolof daf na bëreet wàllum teen la waaye ku ñëw ci pind bi lay yem mais fi mu toll nii moom ma ngay wax rek nga ni ma ne fay dafa xuus si xaaxaam bi ba jàll ay limousine yi nii ñoom ñëpp ay xaar waaw ay tapet lan danoo war a ñëw sa waay dafa war a bëre barki Alaaji Fàllu Mbaaka dafa war a bëre ñun dafa sa waay dafa sonn si mbapat yi dafay bëre ay san nanga mbër benn combat baay tamit gars danoo war a ñëw bëre ak moom moom instant fay mi ngi parcelle moo téye parcelle si loxoom ñang baalo mi ngi si ginnaawam barki Alaaji Fàllu Mbaake ñang baalo ak képp ku nekk si ginnaaw ñang baalo mi ngi si ginnaaw fay kii leen gis waaw moom lan am nag barki maam Seera Fall te balaa mu kaa xam xoolal benn promoteur ñëw seet si ko rek ba ñu ñu fay xoolal combat am taxaw na waaw ñun loolu lañ bëgg ñun fay am lamb lamb jërëjaamu instant bi bilaahi booy instant boo booy li gën a dee boo taxawee booy booy gën a dee boo leen joxoon ñun reeree reeree avance bu mu munti doon booy jël ko lekk ji ba suur bu ñu xëyee dem ma defal lu ba yan la lu métti ñii damay ànd ak ñoom yóbbu leen ci maaro yan la lu métti mais fay est-ce que loolu du nekk loo xamante ni da toog sa buntu kër fiix mi ëpp la booy ñëw gën la dooleel gën la fital ngay wax limousine mi ma gis keroog ci état de forme bi mu ne limousine mi ma gis nga xam ni dafa mel ni tëddul di nelaw. xam nga yow nga ni limousine dalaa ragal wala dalaa daw. fay te nga xam ne yaa ngi yaa ngi yaa loo xam dafa mel ne xamoo fay. fay mbaru penc la woon. Hmm. te mbaru penc la fii. waaw ma wax la benn affaire. judduwuma ci xeetu ragal at moomu tàppet amu ci dama la bëgg a xamal ni. bu dee wàllu ragal kese wallaahi lazi laaw barki Muhammad Rasulullah moo woo samay mbokk bàyyi làmb amuma ci xel ñaar ak nit maanaam di am sa xel ñaar ak ñu naan mbër mi lañ koy doxal fay moytu na ko amul mbër muñ ma mus a doxal ma ne man boo fay dama kaa moytu amul mbër bu ma ci mus a moytu ñoom ñooy xool seen fu ñuy jaar di moytu di ut lu ñuy làq ak lu ñuy kal wu ma ci lenn kuñ ci seeti boo bëggee nga ñëw jël làmb ji ma yéen la lu miti booy a ñang mbaaloo ngi nii giro gars yi ñi ngi suñu ginnaaw yaa a gën a xam ah nekk ak Garga mooy loolu mu waaj làmbam yàlla na ko suñu borom defal ndam moo ci nekk bagage yi moom mooy li ma la wax rek affaire yi moom reer tëdd la teel ah, ah, ah, reer tëdd la ak maanaam reer doxee mooy mooy loolu fu yàgg-yàgg dañu mbëkkante affaire moom mooy li ma lay wax rek danañ daje de wax dëgg fa yàlla danañ daje de gars yi ngeen daje euh, mais fay dafa am lu ma bëggoon ñu waxtaan parce que ñu ci bari dañ naan booy fay ci ban écrit la bokk ñii nee nañ mu ngi ci écurie Bathie Seras ñii ñu ngi ni mu ngi parcelle dematul pikin entraîné tul foofu jaaratu fa Boy Faye ban écurie nga nekk. waaw booy fay mu ngi woon écurie Bathie Seras maa ngi koy nuyu bu baax a baax au passage parce sama carrière bu baax a baax aw ma fayam. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. maa ngi léegi écurie Dóor Daara écurie Dóor Daara nag li ma fi indi nekkul ka lenn lu dul fii la famille bi nekk fii gën a jege moom moo ma indi fii loolu kese la mais nekkul benn affaire nekkul beneen bagage boo xamante ne moom moo ma indi fii nii loolu la rek waaw Boy Faye nag mi ngi fi di def làmb ko man làmb laay def essence bii nii ku bëgg ñu jëflante rek ci làmb làmb laay def fi mu ne nii ku ñu dox suma diggante ak yow ci làmb damay bëre ak yow. léegi li ma bëgg a xam mooy équipe Bathie Seras lan moo la fa jëlee coow la wala xuloo la wala dangaa jàpp ni euh, gisatoo fa sa bopp. non du coow nekkul loolu famille bi yëpp fii lañ ñee ma mujj ñëw nekk écurie dóor dóoraat fii nii rek loolu kese la mais ginnaaw li ma fa amoon jógu fa sama ma fi baa ngi waag léegi bu ma jëloon làmb tey gaa yëpp dañuy ñëw demee esaat loolu du ci dara loolu rek la quoi. ku xam euh, ni Boy Faye instant yi yaa ngi dóor dóoraat te xam ku xam dóor dooraat xam ni dafa nekk écrit boo xamante ni Garga Mbossé mooy leader ba Garga moo mu nekk fa tey làmb mun na ko boole mu dem bay bëreeg mbëru Pikine soit mu mu am Ama Balde wala mu am booy Niang wala mu am yeneen mbër yoo xamante ni foofu lañ nekk te yow nga jóge Pikine ñëw fii est loolu du la indil benn gàllankoor sa diggante ak ñooñu. waaw ah, mooy li man booy fay làmb laay def ikiri ginaaraay laa fi bàyyi ikiri bàcc séeraas laa fi bàyyi yaay tudd yeneen école yi rek tudd ñeneen ñi parce que ñun même biñ nekkee sax ginaaraay ñu daan lim ci waa Pikine ñun duñu ci boole hmm. musuñ ñu boole ci lim bi Pikine dafa am ñuñ doon tudd ñun biñ fa nekkee musuñu ci tudd mais dama la wax ne la booy fay instant bi beneen booy fay la làmb moo ko yëkkati làmb laay def ku ma làmb booleel damay bëre ak yow laa la wax ñoom laa xam mafia baa ngi nii sama gaay yi ngi ñoom Bamba ak Zila gaay ñang mbaalo gaay yëpp a ngi nii toog mooy loolu noonu man daal li ma xam mooy làmb laay def képp koo xamante ne nii pour yi sees nañ nga ànd waxtaan ak staff waxtaan ak samay nit ngeen déggoo ci kàddu damay jël sa làmb ñu bëri waaw man loolu la loolu daal moo ne ci en fait booy fay ci loolu lay dox kon liñ naan ginnaaw raay ak Pikine euh, ak Thiaroye kon ay écrit la yoo xamante ne. duñ benn quoi ñoom ñëpp ku ci nekk ak fi ngay représenté. waa ay pàcc la parce que tey jii nii mooy li may wax rek xam nga tey jii bu ñëwee dañuy jékki-jékki ñu ne avenir u Pikine dem rocc ay mbër ne diw diw diw yem foofu am ñeneen ñu nekk biir Pikine ñoo xamante ne amaana sax def nañ ci làmb loo xamante ne ñooñu ñu ci lim bokk ñu ci kon dañ la jël seppi la ci ndab li teg la nële bokkoo ci loolu boo demee ci gox ñu am fu la teg am lu la def. yow loolu ñu la def loolu ñu la teg yow jàppal na yow loolu nga doon kon man actuellement booy fay li mu xam mooy man actuellement parcelle laa nekk unité laa xam ak Cambérène 1 2 ak suma gars yi 1 bi fii 1 ba 26 maanaam. ñu ci ëpp dañ may béggee ñëpp dañuy nekk ci ginnaaw booy fay di ko bégee man loolu laa xam actuellement waaw moo tax daal ku seet si daal laa wax pour làmb làmb laay def bu jaadoo ñu bëre. mais Boy Faye li ma jaaxal 100 euh, pour cent Pikine yi ma doon dégg Boy Faye mosuma ko gis ci open press nii Ama Balde nii Boy Niang nii Sokh nii ñeneen bëri sa relation yi sa diggante ak ñooñ est-ce que ñagas na. non ñagasul samay waay lañ bu ñu dajee dinañ saafoonte nuyoonte ci jàmm mais dama la wax ni ñun dañu beroon foofu noonu même avant mu fay jógee di ñëw fii nii di ñëw sama famille fii suma yaay ak sunu waa fi ñu ne ñun dañ no parce que ñun daaw ñu tudd ci yooyu daaw ñu ci tudd de. waaw tey jii nii maanaam tey jii dañoo ñëw ñu fonk ñu am fu ñu teg parcelle gii nii maanaam tey jii ànd ak ay gars yoo xamante ne nii maanaam mooy loolu noonu dañ ñu jëmmal dooleel bi ñu ànd ak ñoom di liggéey ñu loolu lañ xam bu nupp bu nu Pikine defoon noonu bu ñu defoon noonu amaan na sax am na lu ci bëree bëree bëri du ci am. waaw mais defuñ ñu noonu placé wuñ ñu comme noonu. maanaam mooy ni ma ko mën a waxee mooy ñun dañu séppi teg ñu nële. actuellement mooy li ma la wax booy fay parcelle la ne maa ngi indakat actuellement dama ne la lamb moo ma yëkkati jiili laa lay wax. ne la mbër muñ ci mun di seet bu dul igiri ginnaaw raay damay jëflante ak yow bëre moo ma yëkkati wax laa la wax de bëre moo ma yëkkati. wax ji de leer na mooy bàyyiwoo fi Ama Balde bàyyiwoo fi Boy Niang bàyyiwoo fi soq ku la làmb boole da ngay bëreeg moom. dama ne làmb moom ma yëkkati laa lay wax nii ikiri bàcc seeraas laa fa bàyyi dama laa wax ne la làmb moom ma yëkkati. képp mbër mu ñu munti seeti làmb làmb làmb ñor sama diggante yow ñu war a damay jëflante yow xam nga bu fekkee ne da ngay wax di laax-laaxal maa guur looy nëbbatu man nëbbatuuma ci li may wax waaw parce que gars yi ginaaru kenn nenu ma ci tamit te man tamit ragaluma ci dara man aw ma lu may wax nii di ko làq-làqal hmm. loolu laa fa bàyyi bul loolu damay bëre làmb moo ma yëkkati kuñ ma ci booleel man ak yow di nga jëflante làmb moo ma yëkkati damay bëre waaw loolu laa lay wax jili hmm. aha bëre simple bi dañ la wax naan booy fay day foowee làmbam booy fay day maye bëreem booy fay boo ko yeggee fu sori day foo day def yooyu te léegi fi mu toll nii dafa mel ni dañoo gis beneen booy fay lan la lan moo waraloo loolu da ngaa xam ni làmb war nga cee mën a lekk xaalis wala dañ laa déy wala da dem ba mujj gi nga yeddaat sa bopp xam ni champion yi ñuy tudd ci làmb gënuñu la cee yaay lan la. di yedd sa bopp de àdduna dama ne la doo tëb rek dem ci saar yu mag ya alif laam ngay commencé. xale buy jàng dox day raam ba mu yàgg muy jàng taxaw di faxa salu di daanu. ba mu yàgg mu dëgër. làmb noonu la bu njëkk ba ñuy ñëw xamuñu woon dayo bi maanaam booy fa ay mbiram toll. amaana ñun xamuñu ko woon moo tax ñu doon fooyee lu bari mais actuellement booy fay xam na mooy kan xam na fi ka làmb di yóbbu xam na li mu war a doon ci làmb moom xamal nañ ko moom li mu war a doon ci làmb. moo tax année bu ci jeex rek dañ naan année bii la gën a def jom année bii la gën a def fulla ci kàttanu suñu borom li des ci suma carrière laa la wax. waaw mais comme booy fay dafa def faay fii nii lii wala nàngam yàlla baax na ku juumul doo daan nag mais nañ xool li ci kanam rawul bët daal kuy yoot du sëqat nañ xool ci kanam rek. quatre ans nga nekk mbër mu ndaw quatre ans bëre woo bëre dóor ci lutte simple yi rek ngay dem est que loolu c'est très normal promoteur yi lan la sa diggante ak ñoom wala sa staff lan la lan moo tax booy fay toog quatre ans bëriwul. mais loolu du yoon ci làmb te tey jii man li ma arrivé mën naa ne loolu benn poroblème la boo xam ne day dal mbëru simple parce que booy seet daloon na fi Auguste Mbagnick daloon na fi la ak keneen ak ñeneen a ñeneen ñoo xam ne simple lañ doon def dañ doon dund simple mais boo demee ba ci biir da ngay dem ba sa làmb day sooxee kenn dootul nangoo bëre ak yow parce que dañ naan mbëru simple yi nii mbëru maanaam mbëru ko jël éloigné ko génne ko ci bagage bi te am na ci mbëru simple yoo xam ne ku mel ni ñun ñii li ñuy mobiliser am na mbëru bëre dóor yoo xam ne wallaahi mënuñu génne loolu ci dëkk bi am mënuñu mobiliser lu toll noonu mais li problème bi mooy des fois du doon ci promoteur yi sax des fois ci mbëru làmb yi la nga buñ ne làmb dafa sooxe wala ñu ne làmb dafa yàqu làmb yàqoom ak sooxeem ci mbër yi la. mu nekkee ci mbër yi. gars yi ñoo war a bàyyi te ceggante bi ak tamit appuyage bi ñu di jaarale duñ jaar voie normale ku ci jaar voie normale boo limee benn combat ñaari combat doo ñetteel doo ñeenteel. ah dañuy dagg ticket jaar ci kaw. borom daaru laa lay waxante ne appuyage ñu bëri dañoo pont pont jaar appuyage daw dugg mais ku ci jaar voie normal doo zibile de benn lamb ngay zibile deuxième lamb da ngay toog. wallaahi parce que ñoom ñëpp ñëpp nekkuñu ay beñe suukar yoo xam ne da ngay ñëw war a jaar seen kaw dem sa yoon mais dangay ñëw ñu dam yël la daal di lay tegal sa làmb politique ko jéem a wut fu nu la jaarale mu nooyi nga daal di yolleeku dem ñu ne xëy yuuxoo la sa koñ ne nii ne champion la fii bëri na fi mbër yoo xamante ne nii dañ leen a làmbal fu nooy ñu dem ba ci kaw boleke fi mu ne nii dañoo boleke mënuñ daan kenn dañuy dem di daanu rek tuddaluma la benn tur dama ne la nit ñee ngi seetaanal seen bopp askan wi la gën a xàmmee ñi jaar apéage xaaj bi dañoo boleke mënuñu dem fenn eh, mbër yi nekk ci kaw yëpp dañoo rampe ba yegg fa de booy fa bàyyil waxi rampe rampe yomb na ci suñu làmb ji rampe yow mun na ci boo ñëwee ñu yaara la apéage jël benn beñe suukar jox la nga fël ñu jël beneen jox la nga fël fël beneen ñu jox la la mbër day bëri wax nga taltali mën rajo ubbi sa làmmiñ wi di wax ñu dem jëlaat beneen jox la nga puus ñu ne la champion bu mag la commencé ñu jël xaalis bi di la ko fay mais voie normal gars yi jaaratuñ fa de. léegi yow lan moo tax voie boobu ni mu yombee munoo faa jaar lan moo tax. munoo man bugguma loolu man damay dox di wër ci ay àll di wër lu nooy. affaire yooyu mel ni femme man damaa wër loolu. bëggoon instant du toog fii. man wëruma loolu bu fekkoon ne ay wër lu nooy damay toog dootu kon dootu ma bëre bëre simple damay toog ñu may làmbal ay yoon yu nooy ngay lu di jaar ci falaa yi di dugg di dem. ñu lay mais actuellement nii. man làmb bu métti bu méttiwul baaxul nu mu gën a diisee gën a soxor ñu ne day teppi arkaat moom laa gën a soxla barki borom daaru salaam daw ma ci dara dara dara nu mu gën a méttee man moom laa gën a soxla parce que man sama carrière soxlawu ma ci lu yomb lu nooy waruma ko ci waaye damaa war lu nooy jiili waruma lu nooy de ay nekk fii ñu waaye léegi fay bëre bëre simple kan nga jàpp ni moment bi moo téye caabi bi moo téye caabi bi kenn téyewu ko day wër par exemple que instant bi day wër caab bi kan moo ñemee wax maa ko téye. yow téewoo ko. non non téewu ma ko day wër. Ah, day wër kenn téewu ko. kenn téewu ko làmb looloo ci xam nga li dàq ci làmb ñun tey ji bu ñu tasee ci buntu làmb naa la wax leen ñun ñëpp ñu mbëkkan dee taxaw ñe ma wax ne kenn kii moo jël làmb ji de boo ko waxee da ngaa daa nekk sa mbër rek. Serigne Ndiaye de téewu waaye doo ma bàyyi yow téye nu mu ko téye Serigne Ndiaye de daa tegaleegum ñetti làmb ci benn jour ci benn semaine jël bii jëlaat ñuy wax mu dolli da ngaa gis mu def ko Ah. lamb ji day wër caabi di wër kan moo ko fi téye amaana bu ñu demee at mi jeex téye am mais nii nii téye amagul. mais saison lamb bi fay nekkoon na saison boo xamante ne saison bu naroon neex la ñu jékki-jékki rek mbas mi ñëw yàq lu bare bare bare gis naa la Adrien Senghor mun nga maa wax ñaata compétition nga jël ci durant cinq mois yi nga xamante ne ci la saison bi ubbi. <laughs> non compétition moom saison bu gàtt la. non saison bi dafa gàtt lool mais moom alhamdulilah la ñuy wax daal. sëñ moom alhamdulilah la ñuy wax te bu continuer woon am na lu bëree bëree bëri sax sénégalais dinañ ko xam bu continuer woon lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree loo xam ne maanaam lëndëmoon na ci xelu nit ñi. dina leer parce que diw mën na wala doo mbër day maye day lii yooyu yëpp bu sëñ bu continuer woon di dinañ ci gis lu bëree bëree bëree bëri te nag loolu dañut làmb ngi sunu kanam. incha allahu rabbi léegi mbas mi jeex ci kàttanu na Mohamed lépp ubbi waat ñu tegaat lépp ci yoon. fekk naa la terrain gaal gi nga daan toog jooy ne ñu bari dañ may wax ni sama làmb dama koy foowee te man dafa am loo xamante ni dama ci teg sama bët teg ci sama tànk sama yaay dafa feebar te dama am lu baree baree loo xamante ni warloo naa ko moom te làmb laa yaakaar du ko caaxaanee lan moo waraloon nga wax wax jooju. yow dugg nga ci kër gi gis nga sama yaay fi mu toog. Hmm. waaw tamit am na lu bëri loo xam ne mu ngi sama ginnaaw tey ji làmb tey ji maanaam ñu ngi yëngu ci leneen mais làmb mooy li fës. Hmm. mooy li nga xamante ne ci lañ bëgg teral suñuy waajur ci lañ bëgg a teral ñu wéeru si ñun parce que tamit comme ni ko gars di defee rek parce que ñi koy def gënuñu ndey ñu bàyyi gënu gënuñu riis juddu tamit leen la ay góor yàlla ñuy góor yàlla ñuy wut ñu nit ñuy wut rek yoon wi yéex la ak gaaw mais tamit ba tey tamit taxul ñu bàyyi ñu ngi ci yoon wi di dem rek su ma waajur yi moom suma yaay ji li gëj na jox dox carrément mu jub nii carrément yàgg na suñu tuut tànk la ba léegi mais sant yàlla nag quoi mm-hmm. sant yàlla segam ñu ngi toog nii di waxtaan ak moom mm-hmm. ñuy waxtaan nii sant yàlla la quoi ndax tey am nañu bëri ñoo xam bëgg nañ toog ak seen way juru jigéen bëgg a waxtaan ak moom mënuñu koo am mm-hmm. sant yàlla baax a baax a baax loolu moo ci nekk man du ma fooy làmb xamal tax lu ci baree bari lu ma am làmb ma ko may kon man làmb du ma ko caaxaanee da di rek di nga liñ naan Messi at ni mu jàngee kiris ak keneen ak keneen ku ne ni mu jàngee football. Hmm. man ni ma jàngee bëri moo ma xaw xawoon sonal ma am ma ko doon corriger sama bopp di corriger ba fi mu ne alhamdulilah daal sant nañ yàlla ci lu baree bari parce que dem nañ ba nga xamante ne li nga xamante ne faay la woon dindi nañ ko waaw. ndax tey jii li ñuy bëggee bari na daal li ñuy bëggee bari na chaque jour nga dégg supporter yi surtout waa diaspora bi waaw ku ñu mel ne ay ñoom ale gars yi nga xam ne ay Lamine ah, ay Baylaay diaspora bi gars yi ci biti wóor na yàlla dañuy dañ ciy kaas bu baax a baax a baax a baax. waaw surtout waa Maroc yi gars yëpp dañ ciy kaas ba tax na tey jii lu ci bëree bëri bàyyi nañ ko ci làmb di ko teg ci yoon. di seet li nga xamante ne moo nu manqué ñu koy def quoi. wax dëgg fa yàlla waaw. Boy Faye làmb ci kaw euh, mën nañ ni daanaka làmb ci suuf booy mbër moo laaj li muy wax mooy mu ngi commencé ci yaawu jaal ba ko yor roi des arènes bi fi mu toll nii daanaka mën nañ ni ci yaaw jàll la commencé ba ci Modou Lo ñooñu noonu ñëpp ci làmb ak ñi ci nekk kan nga jàpp ni moo ci dàq bëri. man maa dàq bëri ci làmb. yaa dàq bëri Modou Lo. Mhm, man maa dàq bëri ci làmb man laa wax sama bopp man Boy maa dàq bëri ci làmb. man man maa dàq bëri ci làmb waaw mais làmb ji est-ce que ponkal yi ci kaw ban ponkal nga vi ñu laxasu la wër la ndomba nga dow dóor el de pison dóor ko padd waa ji tëb nga jéggi ànd ak moom te ki nga dóor noonu padd sans nangam kilo la làmb kuñ ci wër ndomb ci suuf ba ci kaw jamono bii nii nga yuuxu jooy ak say mbokk ndax da nga naan daanu nga booy fay moo fii bëre ba fekk toogoo ci dënn bi jàpp nga ne yow daanu goo mbër fii mbër yi nga dégg ñaan mbër mbër yëpp mbër muñ ci dóor fàq taxañ sa ñaari la sa ñaari tànk boo reculer da ngay xool foo tëdd waaye foo ci génnee doo ko xool foo tëdd ngay xool soo demaatee ñoom ñiy seetaan ci net bi gis nañ. gis nañ moo tax ma ne la xaw ma ñenn ñi man laa wax man maa dàq bëre si làmb. kan moo ci ndax maa ciy def ndax maa ciy def lu kan. fit kan moo maa ci ëpp fit. kan moo ci ëpp caay-caay yu bëri. caay maa ci gën a saay-saay. kan moo ëpp mystique. mystique moom yàlla baax na. <laughs> waaw mu yàlla bëri na <laughs> mais fay mënoo jël lépp ma ne kan moo mystique nga ni. yàlla bëri na sutura jëlal mystique na yaay borom. yàlla baax na yàlla sutura. <laughs> ñëpp am mystique. ndeysaan mystique fay fay li ma bëggoon ñu waxtaan mooy sa diggante Doudou Sané lan la yéen ñaar yéen ñaar lan la. ah Doudou Sané la <laughs> ma koy nuyoo passage Doudou Sané champion la mooy li ma la fi waxoon rek dafa am fu di jaara ay ndaw lañ nag fi mu ne dañoo ne ay tuutàngi ñun war a toll ci xëccoo ci xëccoo lañ toll fi mu ne nii nekk ci dalante ci jëflante. mais mooy li may wax rek Doudou Sané bu ñu ko néew saison bu dul woon corona sax di nga gis lu neex waaye parce que dinañ jëflante jëflante yoo xamante ne nii loolu day bokk ci li nga xam ne day gën a dundal làmb traditionnel. Hmm. day tax làmb traditionnel gën a dund hmm. parce que. ay ay ay maanaam ay affaire yu neex la yoo xamante parce que Doudou Sané booy xool dañoo jege pass yi coow li bëri foofu ñu ñëw Ndakaaru mu demee noonu waaw waaw waxal loolu waaw wax coow li bëri waaw mais dañoo bëri fa pass yi mu daan na man du ma retourné ca la xewoon li xewoon du ma ci waxaat moom nga cee wax non du ma ci waxaat xamal da waxaat dañoo bëree foofu mu daan ma laa ñëw Ndakaaru ma daan ko mais nañu dem Doudou Sané maa moom du waroon ma tudd du ma ko tudd ci làmb sax Doudou Sané maa ngi moom bokkuñ ci benn fànna bokkuñu ci benn fànn noo ci benn fànn bokkuñu. saison wu daaw dégg naa dañ laa ajoon yan dëkk lañ la aj. aj bi xanaa Passy kese la te ñoom ñoo ma tooñ aj ma parce que ñoo ma tooñ man bu ma leen toppoon moos leen nay xew ndax munoo ne da ngaa xaw ma tëgg 1 million 500 xaw ma 2 dem ba mu yàgg nga wàññi mi am na loo xam ne duñ ci topp di wax sax buñ ci toppee di wax day nuru leneen waaw buñ ci toppee di wax day nuru leneen passé na passé na. man fi mu ne nii li na sama kanam laay wax mais li ma weesu ginnaaw weesu naa ko même ñi nga xam ba ma bëri woon a ñoo am si ndam ñoom ah, ndam ci ñoom sax li jënteetu ma la ma weesu ginnaaw mais li jëm ci kanam moom xam naa ne li jëm ci kanam la te jor wax ju bari li jëm ci kanam li ci kanam la. li jor wax euh, limousine. dinaa ko seeti bu bu yàggul tuut. lan nga koy wax ban message nga koy sànni. limousine daal. ngay xool waxal yi day dem bu romb dootul ñëwaat mat nga mbër ponkal nga sa digg kër. da nga war a ñëw ñu jëflante ma yen la li ma la war a yen ni say morom nga dem ñibbi ci fulla loolu laa am wax la nag du ma ci waxaat beneen wax bu dee daal fi mu nii li ma la wax tuuse na la gars yi dañ lay indil avance bi te la koy indil nga jël rek ñu jëflante li ngay soo ko jëlee nag ñu jëflante maanaam li ma lay wax c'est que ñu weddi ko wala ñu xam ne dëgg la wala du dëgg limousine boo jëlee avance bi di nga xam ne lépp wér na jëlal rek coow li jarul muy bari lekkal avance bi rek wàcc estat buñ dalantee buñ paree di nga xam ne lépp dëgg la. jërëjëf mbokk yi di nga xam ne lépp dëgg la booy fay waxi Boy Faye la du samay wax limousine sampion la booy fay sampion la mbokk yi ñuy seetaan wasaare làmb yéen laay bàyyi ngeen décortiquer ba xam loolu combat la Boy Faye ak limousine. limousine nag bërki démb fekk naa ko tëngeej ci dëju ki nga xamante ne mooy gàmm euh, euh, wuy sama nday yaay Papa Yadda merci fekk naa ko tëngeej ci li nga xamante ne mooy dëju Papa Yadda Papa Yada boobu laa ko fekkoon gis ko mu nekk ci état de forme bu bu macha allah mais munoo cee waxtaan parce que dañ koo fekkoon ci tiis ñuy jëfalaat képp koo xamante ni day seetaan wasaare làmb booy fay ana lan ngay tàggoo ci wasaare làmb. waaw di sant sama gars yi rek waaw sama waa ji may àndal Sall Ngaari moom mi nga xam mooy laal sama bi waay dëgg la ak sama mag Ibrahima Niang ba Sakho Babacar Vendaw ak waa Mel Ngor maa ngi leen sant bu baax Abou Kama maa ngi sant waat Loul Sessène gépp di sant waat Jëlaxaar sama waa ji xam na boppam. di sant gaa yëpp waa kër Mbangu Diawo waa sanc Aliou Ndiaye daaru kër Momar Xoreja waa Ndiobène Taaleen kër kër Birane kër Mamou Seck ñoo ñëpp maa leen di sant di leen gërëm di sant waa Fatick waa Nduuk di sant waa Njaay Njaay waaw waa Marlooj ak waa Jifeer Fambine maa ngi sant gaa yëpp waa caalaan yëpp yëpp maa ngi sant leen gën sant sama benn copain Lamine marché poisson maa lay bëggee sama ak buuba ñoom dañu jàpp ci bagage bu baax a baax waa marché poisson bi yëpp bu Pikine maa ngi leen di bëggee walaay dóoree maa ngi bëggee sama gaa yëpp yëpp yëpp ay njóog ñoom ñëpp maa leen di bëggee gaa yëpp ay Souleymane Khadim bëggee gaa yëpp sama gaa yi toog maa leen bëggee ñang mbaalo kii moom yàlla laa koy bàyyee suma ma waay la su lépp la waaw di bëggee sama gaa yi ñoom Zos ay Bamba waaw sama copain algas gaza boos a ngi ne sama français baa ngi ne gaza boos sama sama français baa ngi nii mooy loolu di di waaw di ñaanal sama waa ji nag Garga Mbossé sunu borom defal ka ndam ci kanamu Sa Thiès ci barke Seydina Mohamed boo xamante ni Sa Thiès la am de waaw yàlla yaatu na yal nañu yàlla may fekk ak tal ak wér rek Sa la fanaan yàlla may fekk ak tal rek waaw di ko ñaanal ndam daal di ko ñaanal waaw di ko di ko ñaanal képp koo xamante ne ni yaa ngi ci secteur bi nii mooy loolu noonu di wuti ndam suñu borom defal la ndam tamit ñi nga xamante ne nii caabi da leen féetee ginnaaw suñu borom waaw daal leen di bàyyi ñu dellu ci seen njaboot parce que bëri na suñu gars yu nekk ci PC bi. Mm. maa leen ñoom ñëpp maa leen di bégee waaw waa campénal bi yëpp waa Forbé gaa yi nga xamante ne dañoo am ay gàllankoor nekk si biir ñëpp gaa yi maa ngi leen di waaw maa ngi leen di ñaanal suñu borom génnee leen ngeen delluwaat ci seen njaboot ci bari Seydina Mohamed ñi nga xamante ne nii dañu wopp te di ci lalu hôpital suñu borom fëgg seen bopp ñu delluwaat ci seen njaboot ci barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tamit tey jii nii feebar bi ñi ngi ñaan sunu borom jël ko jëlee ko fi ku nekk dellu sa activité ci àdduna yëpp sunu borom yal na ko jëlee fépp nit ku nekk dellu ci li nga nekkoon ci bari Seydina Mohamed di ñaan Sénégal yal na fi jàmm tey jii nii lépp loo xam ne wax naa ko lu laal nit lu faraase nit maa ngi la ciy jégalu bu baax a baax mm-hmm. yëfi yëfi ndaw la rek mm-hmm. tey jii nii ñu war a jëflan toll ci war a jàppante comme ni mbëri di def mm-hmm. tey jii ñoo mu am nu mu demee suñu côté ñu war a bëre nag war a jëflante comme gars yi waaw yàlla yàlla na jàmm yàgg fii daal jii la yow amal gudd fan wér gi yaram yàgg sama waa ji cameraman bi yéen ñëpp am na nañ tawféex te xam ne daal àdduna daal lii moo fi xaj jàmm rek jàmm rek mais gars yi nañ ñuy jël ñu bëre nag waaw nañ ñuy jël ñu bëre rek parce que instant bii nii waaw fooy loolu daal faaw faaw gars nag faaw ñu mosante quoi. parcelle mafia nekk si ginnaaw booy yi teggi nii nañ ñëw fay ngi ni booy yëpp a ngi sa ginnaaw. waaw waaw yooyu de mafia bi nañ ko soxla de suñu wàccaatee fii nii du yomb de. barki Serigne Bamba la booy ñëw nu bëre. ñang dégg naa dañ lay jox avance rek ngay ngay say staff naan non bu mu bëree combat bi teel na ci xale. kan man ah. man gisuma gisuma dara gisuma avance. Ah, am na avance bu may dégg ci yow. Ah, man nag dégguma loolu dégguma loolu ban avance la. kan moo la téye loolu kan moo la téye loolu sa combat parce que am na combat bu ma doon dégg ni jam production bëggoon na ko ci yow ñu téye ko ci yow lan moo waral loolu. non kenn téyewu ma sax kenn téyewu ma moom daf ma woo téléphone rek junj ma mais boobu tey déggaatuma ko. Hmm. waaw kenn téyewu ma man bàyyiwu man waaye man bàyyiwu ma fi kenn bàyyiwu ma fi benn mbër. booy jaamu gën instant nii man su ma takkaatee ngeen ma jaamu gën laa bëgg a dugg. soo koy tarkindaay. bëri na man ragaluma nit damay lim tur. abu Ndiasse. men bu ah, booy caatu foora. ñooñu ñëpp kenn du si échec. booy liis njaawo ñeent ñooñu ma la limal. Hmm. te ñooñ laa bëgg a bëree ak jàmm gën kenn ku ma si am baax na. yóbbante la barki Serigne Saliou Mbacke su ma jugee foofu. dugu Medina Fass. Ah, waaw mais balaa maa balaa maa dugg foofu damay dugg fii ba pare. waaw man fa laay njëkkee ba pare. man ku sax duma ko rek yow. barke Serigne Touba Mbacke. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb noonu la demee booy fay laa seet si woon mais dégg ngeen ñang mbaalo li nga xamante ni loolu la wax nee na daa jël séesam teg ko biir jàmm gën. ku dul mbëru jàmm gën soxlawu la fi mu toll nii yow la bëgg a bëreel xaw ma nag ñi mu dékku ba xam bëgg nañ koo jël wala déet abu ñaase la tudd tudd na bul laal tudd na xale bi nga xamante ni macha allah farki démb bërki démb moo njaay yaa ngi koy gis muy def ay parcours yu am solo waaye xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel